UCAB FM. li gën a fës ci yéenekaay yi. Papa Saer Mbaye bis simili coowal Miss Sénégal yi lëmbe ci réew mi daanaka ay fan na ngeen ni ba day yéen kaay yu bëri ca la nu des kenn ku ci ne ak na nga cee nettale sunu naataango yi xëy duna xamal ne tuuma yi nga xam ne kon moom moo gàllu ci kaw ñi nga xam ne kon ñoom ñooy taxawu eh, jogante it a taaru eh, bi xëy duna xamal ne tuuma yi ñu gàll seen kaw fi mu toll nii day eh, pënd ba wuureegul yaay xale bu jigéen bi nga xam ne kon moom moo ne dañu koo jaay doole sàkk ko ba mu mën ca lor loole nag daanaka yéen kaay yu bëri ca la nu desandi xëy dinu xamal nag ne li jaaxle dëggantaan te indi jaaxle gi moom mooy daanaka ba ci aljuma ji ci ngoon gi suñu wa lenn loo xam ne kon def nañu ko ci ngir a leeral lu nu mel ci wàllu yoon du lenn du ki nga xam ne kon moom moo di soxna si nga xam ne kon moom mooy yaayu xale bu jigéen bi wala xale bu jigéen bi ne dañoo egg ci kawam wala ñi nga xam ne kon ñoom ñoo du kenn koo xam ne kon gis nañu mu jëm ci wàllu ko yoon ngir ñu mën a leeral lu nu mel l'observateur yéene kaay moo xëy dinu ko nettali sunu naataangoo yi xëy dinu xamal ne ñu ci bëri bëri ci ay miss yoo xam kon bokk kon bokkoon nu si jongante boobe dafa mel ne kon dañ doon xaar xale bu jigéen bi nga xam ne kon moom moo di Fatou John di Fatima John ngir mën a wax lii doon nekkoon ci seenu xol bëri na ci ay miss yoo xam ne kon kenn ku ci ne jëkkati nga say kàddu di indi ay seede ci jëf joo xam ne kon jëf nañ lu ko ca yéenekaay bi xëy di ñu xamal ne luñ ci mën di nemmeeku day kàddu seede yi nga xam ne kon moom la ñu dégg ci lenn ci ay soxna yu ci wàllu ko jongante boobu de doonul lenn loo xam ne kon dafay doon gënal ci ñiy taxawu jongante boobee ndax nag li nga xam ne kon moom leen di wax daanaka ay ñaawteef yoo xam ne kon ñoom jot nañ ko caa dund moom lañ nett moom la ñuy ne nettali yéen kaay bi diñu ko xamal sunu naataangoo yi ba tey diñu xamal ne am na ci genn kuréel goo xam ne kon Lady Club Sénégal lañu ko duppe mu doon kuréel goo xam ne kon ay jigéen ñoom ñoo nekk ca biir ñoom nag jóg nañu takk seen kumba di getaru nag nee na nag leen nu bëgg mooy lu jëm ci mbir mi moom nanu ko leeral ba mu leer nañ fexe nañu ba am lu toll ci fukki junni eh, ci ay yoo xam ne kon Vox Populi moo ñu koy nettali diñu xamal ne seen la li nga xam ne kon ba mu leer nañ ba ñu xam dëgg-dëgg lan moo xew eh, ci li nga xam ne kon moom moo di coow li ki nga xam ne kon moom moo di xale bu jigéen bi kan moo ko wan loo lor moom itam koo koy def jëf joojee bëgg nañ mu taxaw ci kanamu yoon la nu ko tuumaal mu mën koo leeral yéen yi yemuñu foofu la ko jongante boobu moom bu na eh, ko doon taxaw loolee na ko kilifa yi nangu te na mu gën a gaawe yéen kaay bii di libération xëy di nu xamal ne luñ ci mën di nemmeeku daal jamono ji seede yi nga xam ne kon mooy bawoo fu ne jëm ci ñiy taxawu kuréel li jëm ci wàllu jongante bi di Miss Sénégal neexul benn yoon jëm si ñoom ndax naka ñoom ñëpp dañoo jóg songu leen ak yeneen tuuma yoo xam ne kon daf leen di gën di taxal yéeni kaay bi xëy di ñu xamal ne bu ñu ko mooy Miss Sénégal bi nga xam moom lañ doon taxawal kayit gi nga xam ne kon moo leen di jëmmal di autorisation ba moom lañ war a foqati nangu ko ngir naka mbir mi yam fa benn yoon yéeni kaay bi xëy di xamal ne enquête moom mu ne jamono ji lu jëm ci wàllu ko Miss Sénégal bi li muy xeeñ dara neexu ca sunu naataango yi di xamal ne Fatima John mi nga xam ne kon moom nag moo yëkkati tuuma yi daanaka ñaari fan boobaak léegi réew mi ñëpp du ci bëri moom la ñuy su sunu naataango yi di enquête ne mbaadu mbaadu lii dafay doon loo xam ne rek moom lañ ci xamagun est-ce que amul sax yeneen yoo xam ne kon moo gën a métti lool nekk ci ginnaaw yéenekaay bi ne ab laajangoo ku am tontu bi indi sunu naataango yi diñu xamal ne ñeneen ñoo xam ne kon sóobu nañu ci xeex bi mooy kuréel gi sàmm rek lépp luy wormaal diine l'islam jamrax yéenekaay bi xëy diñu xamal la nu bëgg mooy procureur bu mu xaar dara na gaaw ca na mu gën a gaawe teg loxo ci li xam kon moom moo di mbir mi ngir ñu mën koo leeral leeral yéen kaay bi xëy duñu xamal ne waa la nu bëgg rek mooy ki nga xam ne kon moo def ñaawteef kon moom moo ba itam bëgg na procureur gëstu ko ba xam dëgg-dëgg lan yeneen yéen kaay ci ngan gi nga xam ne kon xalifa Medina Baye bi eh, moom nag yëkkati na ay kàddu jëme ko ci ñii di way politique yi nee lay li nga xam ne kon moom moo di xale yi yi nga xam ne kon saa su xat ga lay na ngeen woo leen ci mbedd mi waaye itam di leen woo ci fitna loole nag la gënoon dëgg-dëgg mooy nag ngir xamal leen la leen war eh, ci wàllu ko taxawaay lan moom doon seen warteef dëggantaan ci wàllu ko yar ak leneen eh, kii di xalifa Medina Baye moo yëkkati kàddu yu ni mel sunu naataangoo yu bëri bëri eh, dellusiwaat ca les échos yéeni kaay bokk na ca di ñu xamal ne Cheikh yi nga xam kon jot na ko caa wax ca Ndakaaru gi nga xam ne kon moom la amalu ngan waxtaan ak ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di way politique yi ngir gën leen a tey ñu leen dugal ci fitna Cheikh Mahi Niass yéeni kaay bi di Walf Quotidien dina xamal ne xalif la bu wàccee boppam lool waaye itam kàddu yi nga xam ne kon moom a moo xëy ak jaar jaara moom xalifa Medina Baye bi nga xam ne kon bokk na ci yoonu Tidiane bi nga xam ne kon ca Kaolack la nu sampe lu jëm ci wàllu ko yoon wi nga xam ko sampoon naka doon El Hadji Ibrahima Niass mi nga xam ne kon ay atam mi ngoo nekk ci diggante di mille neuf cent ak jàpp mille yoo xam ne kon moom la dund juróomeelu xalif bu Medina Baye la Cheikh Mahi Niass yéen bi xëy dinu xamal nag ne dafa doon koo xam ne kon lépp loo xam ne kon luy tabax doomu aadama loolee du ca sonn du ca tay dana ca def lu mu waaye tam xam-xamam wàllu ko alquran ak diine bi xëy dinu xamal ne moom mi jiite li nga xam kon moom moo di fayda tijaniya doon na ko xam ne kon daanaka daal ay kàddu dëgg moom amul kenn ku mu ko beral ku mu war a wax dëgg dana la ko wax waaye tam li nga xam ne kon moom moo di ab taxawaayam kenn umpaletu ko ci biir réew mi Walf Fadjri quotidien ñu koy net le Soleil yéen kaay moom ma nga ca lu jëm ci wàllu ko taxawaay bi nga xam ne kon moom la ñu ci taxaw ci lépp loo xam ne kon bokk na ci lu jëm ci wàllu ko taxawaay bi ak réewum Sénégal ak gouvernement bi yenn kaay bi xëy na ko dellusiwaat ci ponk yu bëri bëri yoo xam ne kon ma nga ca jamono ni ci wàllu ko lii di gerte gi yéen kaay bi di Sud Quotidien ma nga ca njënd njaayum gerte gi ne nguurug Sénégal ren tënk nañ lu njëgu gerte gi ci juróom fukki dërëm yéen kaay bi moo xëy duñu xamal nag ne loolee ñii di baykat yi bëri na si ñoo xam ne kon jamono ji xal ay xalaat yu wuute lan ca bu ñenn ñi ne tàccu ne gongo am na ñeneen ñoo xam ne beneen gis-gis lanu ci am sunu naataango yi ba tey xëy di waxaat lu jëm ci wàllu ko jafe-jafe yu eh, ñu ngi ko ci wàllu ci bi xëy duñu xamal nag ne luñ ci mën di nemmeeku eh, jëwriñ ji nga xam ne kon moo gàlloo lu jëm ci wàllu ko mbay mi di Moussa Baldé moom mi ministre agriculture ak équipement rural na ci wàllu ko jiwu eh, li nga xam ne kon moom di gerte gi nga xam ne tënk nañ jëgal si juróom na si ñoo xam ne kon ak jaaxle dëggantaan lañ ci am lay waral jaaxle gi nag mooy melo melokaanu gerte ak gi ndax ñii di béykat yi danañ ci génn li nga xam ne ko di nemmeeku jamono ji fi mu toll nii uh, na nga xam ne ko noonu la loonu ko bëggee waaye nag bu la ko nguur gi bëggee la uh, bu ñu bëri bëri ña nga ca yëg si ba nga xam ne kon moo nekk ca Thiès jox na ko dëgg ci li nga xam ne kon moom moo di uh, bokkam ci wàllu ko jongante yéen kaay bi xëy dinu xamal ne ñi nga xam ne di waa coalition Yewwi Askan Wi nga xam ne kon a dem ngir li nga xam ne kon moom la ñu màttal ne duñu ko baax mbate mu dogee jàpp nañu ne kii di Cheikh Issa Sall warta a bokk si jongante yi Pape Moussa Saliou Guèye moom mooy li nga xam ne kon moom moo di ab taxawaayam du ci deltu ginnaaw benn yoon cour suprême la fas yéene dem ak mbir mi enquête yéen kaay moo xëy dinu ko net nettali sunu nattaango yi di igfm point sn xëy du nettali keneen koo xam ne kon teg nanu ko loxo ca Kolda la nu ko jàppe ab policier la doomi Guinée la policier Guinée Bissau boo xam ne kon yéenekaay bi xëy du xam ne am ñool la nu ko téye ñetti ati kaso yoo xam ne kon da koy tëdd ca Kolda moom la nu ko jàppe yéenekaay bi xëy du xamal nag ne luñ ci mën di nemeeku Ousmane Diaw moom de du neex dara ci moom ndax nag bi ñu ko jàppee fukki fan ci weeru novembre yu ba léegi lu neex ma ngi koy jéem ngir mën caa génn waaye nag àtte nanu ko ba te koy daan ñetti ati kaso yoo xam ne kon dënd ko tëdd foofee ca ndung bu siin e média point sn di ñu waxal njiital réewum Amérique di Joe Biden yéen kaay bi xëy dina da koo dénkaandi woon soxna si xam moom la ñu xamal ne ba ñu ko xoolee wér gi yaramam ak cant lanu ci am ndax kat nee nanu amul lenn loo xamee kon gis nañu ko ci ci wàllu tiitaange suñu naataango la war a am juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti at yéen kaay bi xëy duñu xamal ne guléet mu dénkaane goo xam ne kon gis na ne jigéen moom mooy jiite Amérique ci ay waxtu yu néew suñu naataango yi diñu ko nettali jàngoro ji di coronavirus yéeni kaay bi Dakar Actu point ko moo xëy di nu xamal ne Sénégal ni ki bëccëgug tey gi xool nañu ci lu toll si junni ak ñetti téeméer ak fanweeri nit waaye gisuñu ci kenn amul kenn koo xam ne kon xëy nañ tey ji gis ko ci biir réewum Sénégal mu am doomu jàngoro ji yéeni bi xëy di nu xamal ne kon lii moom mooy guléet ba fi mbas mi dugg ak léegi ñu xëy bëccëgug lëmm gisuñu kenn ku am doomu jàngoro ji yéeni bi xëy di nu xamal ne ñi ko amoon amul kenn ku ne wér na ci ni tey ji amutam kenn ku ñu lim koo xam ne kon nee na nu wàcc na ci liggéey wàllu ko ji sunu naataango xëy di ne Sénégal kon bu ñu koy xool jamono ji mbas mi juróom-ñetti ñoom ñoo ko am ci biir réew mi yépp ñett ñoo ca ne soytas mbokk yi yéene kaayangoog dig di jëlëg incha ci yéene kaay yi. Papa Saer Mbaye.